sa laaw dinaa la barkeel yokk sa askan noonu Ibrahima di xaar tey muñ ba jot li ko yàlla digoon nit kuy giñ nag daf koy wékk ci ku ko sut ngiñ gu mel noonu moo wóoral mbir mi tey di jeexal lépp lu ñuy werante ñi war a jot li mu dige yàlla daf leen bëggoona woon ne dogalam du tebbiku mukk looloo tax mu dige boole ci ngiñ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 waaye ñoom ñu nara dee lañu melkisedek nag moom mbind mi wóoral na ni dafay dund léegi nag ci ni ñu ko mën a waxe léewi miy jot asaka ci bànn israyil moom ci boppam jox na ko melkisedek jaare ko ci ibraayima ndaxte mi ngi nekkoon ci geñook maamam ibrahima bi ko melkisedek gàttandoo jox nañu bànni israyil sukkandikoo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 te defuñu ko sëriñ jaarale ko ci yoonu ndono waaye fal nañu ko ci dooley dund gu amul àpp ndaxte seedeel nañu yeesu lii doon nga sëriñ ba faw mel ni melkisedek noonu tebbi nañu yoon wu jëkk wa néewoon doole te meññul dara ndax yoonu muusaa wi yeggaliwul dara cig mat waaye dugalal nañu fii yaakaar ju gën ju nu mën a jaare ngir jege yàlla te rax ca dolli ngiñ ànd na ci ndaxte ñi soqikoo ci lewi doon nañu ay sëriñ te kenn giñul waaye nag yeesu moom doon na sëriñ bi yàlla giñee ne ko boroom bi giñ na te du dellu ginnaaw mukk doon nga sëriñ ba faaw ngiñ loolu moo tax yeesu nekk tayle giy wóoral kóllëre gi gën te it yeneen sëriñ yi dañoo bari woon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 wut leen ak ñépp jàmm te fonk dund gu sell ndaxte ku sellul doo gis boroom bi moytu leen ba kenn du ñàkk yiwu yàlla mbaa kenn mel ni reen bu wex buy jébbi ba di leen la jël tey gaañ ñu bari ci wextanam moytu leen it ba kenn du njaaloo walla muy fonk du yëfi yàlla yi ni esaw mi wecce woon ndonool taawam ngir ak lekk